gis-gis nga am ci ministre de l' intérieur ne arrêté na bépp ndaje. gis-gis bi ma ci am mooy que ne ñun lañuy bañ ñu feetu parce que boo leen seetloo seetlu leen calendrier bi rek heure bu feetu chrétien ñëwee rek si la ñuy ne dañuy arrêté di wax di tere rassemblement te loolu pour man du yoon parce que dem nañu màggal ñi bëgg a gàmmu gàmmu nañ kon ñun tamit dañoo bëgg a feetu dañuy feetu nañ ñu bàyyi ñu feetu suñu feet bii te ñun nag pare nañu pare nañu ci lépp. pare nañ ci ndax ay taalibe lañ ay taalibe Jésus lañ dañuy feetu ba dee bu yaboo ñu rassemblé ñu ñëw jël ñu dinañ taal cin dinañ feetu ba xorom di ci demba Sénégal nag dafa métti lépp mënuñ ko wax te dafa am loo xamante ne day mujj gars yi dañuy mujj def révolte te révolte bi ñoom ñoo koy créer parce que tey bu ñu nee ay affaire u ndaje mais d'accord dëgg la dañuy gis ñoom ñu la koy wax noonu ñoom ñu def seen i action def seeni i ñu leen def si ay Facebook décembre ku ne xam na ñan ñoo ko baaxoo moom ko ñoo ko moom man bokku sama feet ah. man feete ko ak ñaa ko feete laa man bokk sama programme mais dafa am loo xamante ne nañ tuddee ndey ji seex yi ñuy def nii dafa jeex l'esclavage et fini traite négrière dafa jeex nañ yamale nit ñi nekk ci benn affaire yi ñuy teg nii yëpp yi dafa xew yi yi ñuy créé nii ay révolte lay andi yi gars ku si nekk nag yaa ngi sa ruxu dëgg bal bi di xaar. est-ce que loolu presque engagé kii bi rek ñu tudd ministre bi ah, parce que ñoom ñu ngi jéem a arrêté ndaje fan yëpp ñu ngi arrêté ndaje wante amul benn changement. ñoom dañuy jiite ne arrêté leen te ñoom ñooy commencé bu mbumbaay bu njëkk bee ngi nii Macky Sall ñoom première couvre-feu bu ñu waxoon Macky Sall la ñoo waxoon nañ leen arrêté tey te moom moo njëkk a violé loi bi. waaw ministre bi moom li mu wax d'un côté mun nañ c'est c'est acceptable mun nañ ko nangu waaye nag booy xool d'un autre côté aussi dafay mel ni affaire bi affaire par par loolu affaire far la daal. waaw parce que ñun mënuñu comprendre ñu commencé confinement bi ngalax amul demuñu Popenguine demuñu GMG 15 tuñu. ñu bàyyi mesure barrière yëpp ba affaire yëpp passé gàmmu ñu euh, bàyyi leen màggal ñu bàyyi leen ñun nag ñu war a feet suñu feet ñu bàyyi bañ ne feet bi jot na ñu bëgg ne dañuy confité wala dañuy dañuy dañuy jël seen mesure vraiment man je que c'est ce n'est bu ñu amee li ñuy li ñuy def nañ ñu may ñun ba suñu feet passé mesure yi ñuy jël ñu doog ko jël mais instant nii moom moom franchement affaire bi moom am na lu muy nuru moom wax dëgg yàlla gis nañ ne euh, élèves yaa ngi jàngi église yi ñu ngi tijji ba ci jàkka yi tamit ñoo ngi tijji léegi nga yaakaar loolu tamit euh, du yokk kaa bi. du ko yokk parce que Macky Sall moo ne nañu vivre avec le virus kon nañu vivre avec moom jël suñuy mesures ñu def ba jël mesure dem màggal def noonu jël mesure ñiy gaamu gaamu ñun mën nañu jël tam suñuy mesure ñun tam sol suñuy masque jël suñuy zel éduquer suñuy doom yam fi ñu war a yam kon nañ ñun tamit nañ ñu bàyyi ñu feetu suñu feetu. xam nga tey ay yokku kaa wala wàññi kaa man gëwuma ay yokku kaa gëwuma kaa man gëwuma affaire bi kon du ma ci mën a wax si loolu pour ay yokku kaa ay jàkka jeeg ay église ba xam nga mosuma gëm affaire bi te du ma ko mës a gëm yàlla bi mu wàccee feebar amul feebar bu mu wàccee si kaw suuf te amul lu koy faj amul si kaw suuf ah man de seen corona bi am na gëm naa ko selon si ñoom lu ñu wax waa tamit kenn mënul comprendre man ne mosuma gis ko corona mosuma dégg ko corona te man Pikine bi fii presque ñu ma fi xam bëri na ñoom daal seen corona bii daal man xawma lu ci nekk xawma corona business la xawma corona lan la kenn comprendrewul ñoom daal ñooy réeral nit ñi suba ñu ne zéro cas gannaaw suba ñu ne amul. ah Macky Sall de moo ne il faut vivre avec le virus et pour vivre avec le virus on mis des gestes barrières waaw geste barrière mooy doon raxas seeni loxo ah di sol masque sol masque yi nag moom gars yi ñu ngi ci ba léegi waaw ñoom ñoo bàyyi woon seen loxo nit ñi tam bàyyi seen loxo ndax nit am na loo xam boo koy topp da koy topp ba mu sës. waaye doo ko topp ba dem ba ci benn côté nga arrêté wala nga dem ba benn instant nga arrêté da nga koy topp ba mu sës waaw mais bu ñu affaire bi daal depuis ci njëlbéen la bu ñu jëloon seen i matuwaay depuis le début kon duñu doon egsi fii xale nag il faut ñu jàng parce que mënuñu toog pendant presque huit neuf mois jànguñu ñu war a ñu commencé jàng un mois après ñu bëgg a toog ne xale yi foog ñu toogaat mënul nekk xale dañuy jàng il faut vivre virus nañ bàyyi xale yi jàng même bu ñuy teelawaat nañu teelawaat ñu jël suñuy matuwaay jël suñuy mesure loolu daal laa gis mais moom fu mu ne nii jàkk mënu fee tëj église mënu fee tëj xale yi foog ñu jàngi